salaam salaam les chers téléspectateurs de la 7TV télé bi ñu nuru ba nopp di ñu dajale mbégte lay doon ak bànneex comme ni ñuy ànd ak yéen tous les mardis à partir de 13 h seen émission bi nga xam ne mooy xew-xew nee naan émission xew-xew nag émission la boo xamante ne lépp luy fait divers wala ay cas yoo xam ne ñi ñi dañ koy dund wala ay xew-xewu jamono wala hommage itam dañu koy ànd ak yéen si biir émission bi looloo waral tax tey fii nga xamante ne fi la ñu taxaw muy route des ñu ñëw nag am fi benn cas bu waar boo xamante ne moom moo fi nekk benn soxna suñuy wax mère Néné Diallo moom nag ñu ngi koy romb si mbedd Almadies luy mbëgg a mat ñaari at fi lay lekke fi lay naane fi lay defee lépp fi mu toog sur place mu nekk loo xamante ni lu doy waar looloo la ba tey émission xew-xew seet si ko fas yéene ànd ak moom waxtaan ak moom lan lay def si mbedd bi ana ay mbokkam lan moo moo tax mu toog si mbedd bi guddeeg bëccëg su baa ngoon ndax fii la dëkk ni mu nekkee si këram dëkk di fa lekk di fa moom fii mu toog si mbeddu almadi luy bëgg a mat at fi nekk lay defee yëpp sur place looloo wala tax émission xew indi leen kaawu maire Néné Diallo fas yéene waxtaan ak moom xool li muy def si mbedd bi lan la ak lan moo ko fi bàyyi ana ay mbokkam ndax dafa nekkatu koo xamante ne amul kenn si àdduna mu nekk lu doy waat. faral di danga ko xam xam. dama ko fi faral di romb des fois damay romb mu ne ma Adja am jëndal ma kafe ak euh, lu muy ndekkee après ma dem jëndal ko indil ko mais man daan naa ko fi romb avant lii di fi am yàgg na dëkk fii de léegi nag bu ma fi rombee gis ko lii dafa sonn lool fu sonn yem te gisuma kenn ku ko dimbali ci dëkk bi maire. mi ñu dëkk fii fii am na ay am na ay maire am na yëpp ñu romb kii ba kenn waxu ci dara ah waxuma sax mais dëkk bi président bu bees bi war na wax ci lii taaliba yi bari nañ ci mbedd mi di souffrir ñu melaat mental yaa ngi bari nañu ut benn benn genre nuñ koy waxati sax benn maison d'accueil ah ñu ñu ramasse taaliba yi am na sax ay étranger yoo xam ne ramasse nañu ñu bari ñu ngi nekk ci booru virage la ñu nekk ñoom mais gouvernement bi na jóg ci lii ay xale yu ndaw yoo xam ne dañuy taxawaalu des fois ci euh, arekaar yi baawu arekaar yi la ñuy fanaan nañ jóg ci lii ak ñu ak malade mental yi nañ ci jóg lii métti na fu métti yam man sama rombee man ci sama bopp damay am la ma métti te duma ci mun dara dama daan wax ne man su ma amoon alal damay ut ay maison yoo xam ne pour ñii la maison d'accueil nañu dimbali ci ñii xoolit kii ñaata ñaata temps la toog fi ñëpp di ko romb nii hmm? Sénégal ci man vraiment aide amu fi nañ jóg ci lii waay ngeen baal ma nag wasalaam. kii war na am plus de deux ans kii avant kii kii bi nag lakk gi xëy na à peu près six mois waaw à peu près la mais yàgg na fii de kii fële fële la toogoon léegi la toxu ñëw fii bu tànk mi méttee nii la ñëw côté bi waaw kii yàgg waaw waaw waaw. mais daal lii daal moom yéen daal leen yéen mii xaw ma kan moo leen woo ba ngeen ñëw mais li ngeen def lu am solo la voilà yan na leen yàlla may jàmm nag te lii yan na ko yàlla dindi ci Sénégal bi. ñàkkul ne am na ñu mu bokkal mu nekk si mbedd bi boobu ba léegi di tàgga témbe di dund dund bi nga koy gis yow en tant que mère de famille ban yëg-yëg ngay am. non mais dama jaaxle ci loolu laaj ko man saa yu ma rombee dama ko utali ndekki su ma ci mënoon dara kon kii du toog fii parce que lii dafa metti dafa mel ni yow da ngay xool ci yow su doon yow. la ngay sentir la ngay yëg lii metti na de kii fii lay toog am na kenn kuy ñëw di ko faj nag kooku moo daan ñëw di ko faj kon nga xam ne kii xamee naa ko waaw mais nag xam naa ci taay yu ñëwatul mais lii daal nañ ci jàpp waxuma kii de mais dafa fees fii ci dëkk bi waaw mais yéen xaw ma ku leen indi mais lii moom macha allah. voilà mbokki téléspectateurs yi gis ngeen nag ñu ngi nii toog ak ki nga xamante mooy soxna neen Néné jàlloo mi nga xam ne mu ngi fii si route des Almadies nekk fi lu mat luy bëgg a mat ñaari at. fii nga xam ne fi lañ ko fekk mu toog mën nañ ne fii mooy këram parce que fi mu toog fi lay defee lépp muy dund situation bu doy waar euh, cas bi nga xam ne tey moom la émission xew-xew indi moo a tax ñu fas yéene ànd ak moom soxna nee na ñu ngi lay def mbokk yi maa ngi leen di nuyu day di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay day waaw. mais ñu gis la nga nekk fii si mbeddu almadi yi ñu ne yaa ngi fii bëgg a def lu mat ñaari at. waaw sama toogaay day dama dem fii waa yend foofu di ñaan nit ñi ba ngoon jot ma añ fa door a ñëw. ma ñëw ci guddi gi ma tëdd rek ma wëlbatiku nag di defar fii eh, li may li ma fi fi may toog jaar sama yaram bi ba mu tàng ma mën a tëdd ci la sama tànk duggee ci taal bi daal ma lakk yaruma doom yaruma dara li may ñaan ci lay lekk daal yaruma waaw. mère yow nga ne fi def nga fi ñaari at. waaw waaw. fii ma la fekk nii nga toog nii nii meuble ko nii. maa ko def man defar dama defar fu may tëdd ba mu baax. parce que bi may soog a ñëw fii ñii dañu defe ne woon ku yaramam neexul la waa fee laa sesoon ñu xëy rek daal di may jëlee foofu ma puus ba nii ci tali bi waaw fi ne bu guddee yooyu dañuy fees dell fii damay jënd garab yoo. d'accord ñi la doon romb fii dañu foog ne yow sa yaram neexul te dara la. dara jotu ma daal. yow an sa mbokk. samay mbokk déggoowuñu ñoom ñu nga caaroy man maa ngi fii. fan nga dëkkoon avant ngay nekk. caaroy laa jóge euh, fale fa Kër Massar foofu laa nekkoon dama daan def nag samedi ak dimanche ma dem seeti sama yaay. ba ni mu gaañoo mais suñu waa kër déggoo ñu daal ndax ñoom avant may lakk ni avant yii di ma jot jamono yi may jaay yor sama boppu tranquille ah, yow da doon jaay waaw maa ngi doon jaaye port bu mag bu Dakar lan nga doon jaay ataaya gerte waaw yooyu yëpp doon jaay fële si poor Dakar waaw sama taabal laa yoron daal waaw pool yu mag yooyu moom laa doon yor parce que dama daan def bu gerte bu tooy xewee ma nekk ci ba gerte gi arrêté ma door a dellu ci caaf bi mais mun naa caaf daal ndax bu ma weeree rek sa xol sedd butéel yi 1000 francs dee tubaab yi ma jaayee leen ko 2000 keroog bi may bi ma camion bi di mëkk foofu sama kalpe bi mu woddee ci tali bi maa ngi yor fukki junni juróom benn camion la mbëkk foofu ci port bi nga doon liggéey waaw suñu waa kër bi ñu leen woowee téléphone booba xaaral yow da nga nekkoon port di liggéey di yor sa xaalis yor sa bopp yow sa bopp man man maa mus jëndal sama bopp yëpp ndax sama yaay ndax sama yaay damaa tàggoog sama jëkkër ñëw rek waa sama yaay teggi sama loxoom ci man ñale la gënoon a placé doom mais bu soxlaa dara man lay taxaw waaw benn ni mu gaañoo nii bu soxlaa dara man lay taxaw suñu waa kër bëgguñu maa gis ñoo bokk benn ndey mais bëgguñu maa gis fii lañ leen woo ne leen camion bëkk na ma ñoom ñu dem hôpital di laajte ndax galaase nañ waaw bëgguñu maa gis daal te yéen yéen a bokk benn ndey. fii laa bàyyi sama doom dem Gàmbi ma ñëw ñu ne ma xale bi dee na ah. morsoom bu gën a tuuti gisuma ko sama yaay dee ñu jaar ci suuf yemale ko fa sama yaay fi mu ne mënu la wax ci almeer yii la placé wu parce que xaw ma ko fii laa. lan moo tax say mbokk beddi la noonu. Ah, waaw yàlla bëgguñu maa gis sama yaay bu soxlaa ndawal ne ma neen ne damaa xëy ndawal gi day jékki-jékki surtout ma tabaski wala korite day jékki-jékki rek gis ndawal gi tegeeg pomme de terre yeeg yëpp ma togg ba mu jaar yoon ñu añ ba suur naan ataaya ma toog waxtaan ba ngoon door a ñibbi li ma lay wax noonu booba maa ngi sëy naka laa tàggoog sama jëkkër ñibbi si nag a ah, maire bi teggi loxoom ci man nee nañu ba ni mu gaañoo nee nañu keroog bu mu nee kundu sama tur la woo ana nen nee leen ko maa ngi nii di dem nen ne dem naa daal. def nga ñaata at si sa biir sëy a ah? sama sëy loolu moom wax dëgg yàlla mënuma koo jàpp ndax mun naa laa wax daal Abdou Diouf daa dem. motul ñeenti fan man ak moom ñu tàggoo daal ah. waaw dafa daa gañe péemi yaayam mu ne bëggul pëla Fuuta ci biir kër gi ñu jënd kër dugal lépp ba pare maire bi indi ay jafe-jafe ma dem fa pour mu gis ma mu door ma kuuru Baay Faal ci biir booba jël naa ëmb bu ndaw ñoom ñu téye leen ci kaso bi ba ma wér police mu ne na fi yem parce que maire bi day rey nit xale bi kilo liibar la woon doom doom bu dafa yàq biir bi boobu ngay dund loolu maire ne ne mu nekk ay jafe-jafe après sa yaay gaañu say mbokk dañ la génne nga ñëw fii si almadi bi toog man duñ duñ ma duñ duñu xamuñu fu ma ne sama rakk bu góor dama ko ne jox ma kenn ma am ku ma yónni mu lànk sama caatu yaay mu ngeeg ay jigéen ku ma ne jox ma xale nga bañ mais bu ña joxee xale aussi fan ngay nekk ak ñoom duñu bëgg wax déggoo li ma la wax ñoom fi mu ne mun ñu wax ne fii laa ne ndax defumaa ñoom neen duñ ma tudd wala déggoo wax ji ba tey léegi yow fan nga nekkoon avant ngay jóge fii nekk fi parce que fii nee nga ñaari at. yooyu Kër Massar te ndox mi nangu fa laa toxoo daal avant may toxu nag samay bagage yëpp daa normal woon mais dañ sàcc sama lal ak kamot bi ma daan defee sama yére paña bi amoon na kubéer mais dañu dañ koo dajji jël yëpp fii laa bàyyi bagage yi dem hôpital avant may ñëw ñu yóbbu sama yére ma fóot ba pare ñaar laa ci yoroon lu ma sàngoo ndax bëgg naa sama bopp daal waaw fi mu ne bu eeru lekk jotee damay defaru ba baax bu ngoon jotee ma taal sama garabu yoo ak sama cuuraay ba mu rafet. instant yow man nga dox instant bi. déedéet damay raam ndax aw ma ku ma yónni fii ak bitig ba bu ma naree dem jëndi dara fi mu ne soo ba tey maa ngi bëgg a boyal fii bu ma gisee ku ma yónni mu jëndal ma añ ma sotti ceeb bi ci bool bi tàngal ko mun a lekk mais aw ma ku ma yónni daal. donc mu nekk ay situation yu métti yoo xam ne yaa ngi koy dund. ah déedéet man man sonn ma ci affaire bi de ndax maa ngi téye sam bopp tranquille maa ngi ñaan yàlla nag am néeg waaw su ma amee néeg ma dëkk ci ba mu rafet. bi nga amee woon néeg yow nan nga doon def pour fay sa luyaas. bi kan man sama luwaas daawul manqué parce que yoruma xale damay régler sama luwaas door a jën door a dem fëgg jaay ba waaw. loolu nga ko def nga ko ñaata at bi ngay dund loolu. boobu man moom moom laa musa xam ay jënd fëgg jaay nii jënd silib yeeg yëpp fi mu ne sama bagage yi ay silib yuy fëgg jaay donc moo ci ne. waaw déedéet di sol lu ma sol daal waa sama yére yi may sol yii ca fëgg jaay ba daal mais damay tase ju rafet. léegi yow euh, accident bi mu ngi la dalee port bi la camion bi fële. suñu waa kër bi ñu demee hôpital ñoom dañoo yegg police yi dàq leen parce que dañoo yegg fekk wax nañoo man comme nii ba pare waa ñu yegg ñu ne leen comment yéen a ngi door a ñëw gis neen ne mu ne leen waaw fekk ñu tabax sama loxo bi ak tànk bi gisoo lii dañu ko ñëw lii waaw tànk bi ak loxo booba lakk jotuma dara jotu maa ngi xees rek waaw ñoom ñu dem hôpital di laaj yii ñoom a mbokkoon booba maa ngi sëgg di saaf waaw waaw ñoom ñu dem hôpital di laaj laajte ndax galaase nañ ma accident bi fan la woon port la may wax noonu yàgg na daal booba Senghor a fi booba Abdou Diouf fi ne waaw dañoo booba nag la suñu diggante yàqu carrément ndax damaa wér hôpital rek waajooju takk ma yóbbu këram waaw déedéet waa ji doon ñëw sama place naan ataaya ji foofu fa la ñu xamante daal waaw yaay ji mun a bëggul pël buy jël seen mbokk lay jël wala déggoo ma ba tey mu xaar nag ba guddi dóor ma kuur gi ci biir waaw ma topp tali bi ay 2 heures du matin ci guddi xale bi wadd ci tali bi boobu déggoo ma ba tey voilà. léegi mu nekk loo xamante ne lu doy waar loolu la parce que boobu ba léegi ngay dund loolu après sa yaay animu sama yaay bi sama yaay gaañ ma xaw ma la wax depuis kañ de parce que ñoom dañ maa nëbb affaire bi yëpp dañ ko faa yemale boobu wala déggu ma ba tey kenn mënu laa wax ne fii laa ne ñu bëgg nag bu samedi ak dimanche naa dem ñu yendul leen ñu gis maag li ma yor ñu lekk ko bokk naka lay buggee mbaam mi te bëggoo li mu li mu yor du bëggoo buum ba ñoom ñu bëgg pour nga nekk foofu kay ñoom war ngaa mën a nekk foofu kon si kër gi am ngeen fa kër sa déedéet déedéet déedéet li may wax noonu li may wax noonu déggoo ko ma yoree dara ñu nga dañoo jëloon poson def ko ci butéel ci kaas pour ma ndéeg xale bi doon seetaan tele moo ma ne nii kap ma ma ma daal di daal di jóg mel ni kuy naan ndox tuur kafe gi waaw fekk xot wallaahi fekk xott yaa ngi ci biir. mais problème mi mel noonu lan lay mën a amee si biir famille ngay dund loolu ak sa ñoo xamante ni yéen a bokk benn ndey. musuñoo dëkk. d'accord waaw mais yéen yéen bokk benn yaay nga wax. man sama yaay man sama papa. sam papa mu ngi Kolda Saare Moussa mais paa bi faale wu ma paa bi bi may gëj gis liir laa fii laa jóge dagg paas dem ba foofu paa bi di daw kër gi pour moom comme maire bi da doon tani maire bi daf maa jox dara pour ma defal ko ci lekkam même yere yi mu sol da ko daan nëbbu dem feneen soli ko fa benn ma daggee paas ñibbisi duma du ma tudd bokk waaw. kon yow daal su ma comprendre sa mbokk yëpp dañ la abandonné kenn bëggul def ak yow. benn kenn wax waaw ñoom dañu foog ne da nga wérul wala li ma wax kenn deful ak man neen. du tax loolu. Baba Diallo mii waaw sama rakk la ki naan may mun a laay ñaanaloo sama rakk la maa ko boot ma ñoo bokk benn day waaw sama caatu yaay ruggi jàllo la tudd mu ngi foofu jabaram may mun a ko mu jox ma kenn maam ku ma yónni mu bañ kon dong la ak sama bopp léegi nga am ay doomu ndey ngeen nekk si dëkk bi ñu lay gis fii mais peut xëy na ak 7TV émission xew-xew nañu xam ne sax au moins mais nee na Diallo mu ngi fii laa déedéet ñoom mosuñoo testé fi ma ne de wala di wala bëggoo waaw man sama bopp laa fi nekkal ak yàlla fi ne bu dara xewoon jàmbur ñee may testé ci ci tali bi mais du kenn waaw du kenn daal li ma am maa ngi ciy yem lekk jàpp ci yàlla nit day wàcc ci oto nag boxom lu am fayda ne ma jëndal loo lekk waaw fi ne sama café ak sama meew yëpp maa ngi ko taaj waaw su ma yeewoo damay ndékki ba suur damay def kilo mburu ma baxal samay nen ba rafet waaw ma def ci biir mburu mi ma lekk waaw. mais mbedd bi ngelaw li tàngaay bi nawet bi taw bi yëpp àndandoo ak moom da ngay moom climat bi. waaw changement su may tëdd fi mu ne damay. tànk bi nag bëggul sagar fi mu ne bu ngoonee damay dindi lii waaw dama su ma ko diwee damay dindi sagar yi mu feex daal waaw mu ngi. bii ko dama dama yokk këriñ gi ba pare di xaar mu booy pour ma taal garabu yoo bi maa ngi yoroon gowe waaw naka laa walbatiku sama tànk bi dugg fële ci biir ma yuuxu nag kenn newul si ñoom fii dañoo soxor ba de doonee nit ki ndox fi mu ne ñiy taxaw nii doone kenn ndox laa bëgg ci bitig ba mu jëndal la eeru añ du jot ba kenn yëkkati boolam ne ma lekk bi ma fi ñëwee ba léegi musumaa xam seen lekk yi lu muy saf damay jënd lu ma lekk rek maire waaw bu ma rombee ma ne ko yaay doo ma xettali nga jëndaaleel ma foofu añ mu ne ma maa ngi dem bu ma ci yemee man dinaa la jëndal ma indil la ko ah. mu nekk mu nekk mu nekk lu doy waar. yenn saay demi ne ma lekkal borom oto boobu ndax si man la daan naanee léwél mais benn yoon la ma fi romb xàmmee ma ah? ma ne moom port la daan jëndee yow sa client. Eh, attaaya la côté yooyu laa doon jaay bi ma jógee port njaayum port bi moom mooy bi sama yaay di dund waaw di fa waaw foofu laa doon jaay kon instant bii daal wéré di moom moo tax mënoo def dara mais bi nga wéré yaa ngi doon liggéey ut location nekk fa ah, sama néegu bopp laa nekkoon ndax bu weddee ma fay sama lu waat xotti samay sagar teg waaw ah rond point croisement Kër Massar quartier quartier Abdou Ndiaye waaw quartier Abdou Ndiaye kër yooyu yëpp ndox mi da nangu daal boor yooyu dañ leen dañoo toxal ñu fa ne. néeg ñetti junni avance ñaari weer waaw. bu ma xëyee dam du fa yendu ba ngoon heure bu ñuy julli timis laay ñibbisi. déedéet. accident bi moom li may wax noonu moom bokkul ci sama problème bi yàgg na daal boobu bokk boobu sama yaay di dund la daal du léegi. waaw métti damaa yor luy metti te aw ma ku ma dimbali ku ne waaw ki fi ñëwoon di ma faj daa jékki-jékki ne ma day day day dem eh, Casamance waaw gis déedéet dañ dañ ko fee yebaloon rek xam xaw ma ku ko bi la fi indi dama day dem Casamance naa ko suy fii mais butéel bi njariñul dara butéel bi mujj ma koo suy bii laay su ma sangoo ba set njàmpeeg saabu fi mu ne mun naa njàmpew ba set fii waaw sama sippon laay sol jupon bi dama ko fóot mu ngi ci biir yi yére yooyu ci sa ginnaaw pañ yére yi tilim la damay déglu am ndox ba ma fóot rek samedi passé laa doon fóot yële mais sàcc bi mu fi ñëwee daa yenoon yére yu set yi paan bi muy dem ak moom mais sàcc dafa ñëw fi fekk la fi sàcc déggoo li ma la sama rajo bu bees tàkk ma jënd ko 5000 teg fii lu ma dégloo xibaar yeeg loolu rajo bi dem na daal sama ñaari siwo su bi ci nekk ñaari ñu eh, mu vingt cinq ceeb moo ci kil kilo ceeb waaw yóbbu ñu yóbbu ko daal. ah bi ngay diw loxo bi wér na lii wér na lii moo ko faj daal waaw wala karité bi waaw bu ma ci utiliser rek. ñaar yi laay boole daal waaw fi ne bu nelaw jotee heure nelaw heure pause nii damay saf nelaw bay buggatee waaw. mais ngay dund loolu nag mu nekk loo xam ne doy waar loolu parce que souvent ñi ñuy gis ci mbedd bi dañuy foog ne seen yaram neexul wala dara mais yow dara jotu la. laa lay wax may la ñii après ci ginnaaw gi nag la ñu wëlbatiku ñu xam ne man làkkat laa comme comme ñoom waaw dëgg waaw may làkk daal sama yaay jaaxanke la foofa na sant waaw. mais yow ku la dégg ngay wax xam ne kon dara jotu la euh, feebar moom moo la teg fii ak ñàkk ay moyens yoo xamante di nga wéree rek bi ñu ma gisee may sangu ba set sama pa sama tubéy yaa ngi ci damay sol sama tubéy yi ba mu baax sol sama simis ma jege taal bi fekk gisoo ni ma defee xeer yi xeer yi dama doon xaar nag keroog boobu mu boy dama fàttee rangale nii mais su ma defee nii damay tëdd fii nelaw ba yeewu xambaat xal yi def ci sama cuuraay dara duma dal lii dama ko fóot nii ba ko ba mu rafet xoolal ku fi ñëw xam ne sax ku set nga donte yaa ngi dund ay jafe-jafe sa tànk bi nii metti sa loxo yëpp mu nekk loo xamante ne lu metti la daal nga ko benn laa mun naa bañ a mais naa ndékki ma añ su ma naree di reeku fii ba fale wuti lu ma lekk sama taati yëpp ay saf moo tax yenn barki démb maa ngi jéggi fii tali bi dem ci kër gi pour toog ah, ah, ah, benn waay bëgg maa dégaase ci tali bi mbëkk ma waaw tuuti ma dee waaw waa ji nii la jóge woon léegi yow lii ba kañ lan ngay xaar. yàlla ba mu ñëw waaw su ma amee saabu ma fóot ba mu set ma lekk sama ceeb bu guddi jotee ma defaru ba jekk ma tëdd waaw. mais tëraay bi guddi gi doo fi am benn problème. déedéet. déedéet sàcc yi la daal. waaw. mais ki lay la. musu mënu ma la wax nii la mel parce que yi muy ñëw la ay une heure deux yor nànk lépp yor mu sàcc rajo bi benn guddi laa ci déglu mu dem waa mais am nañu dëkk fii ñu lay dimbali ñu lay romb kër yi nekk fii almadi doo fa nuyu kenn du wax ak man fi mu ne paa bee boo may jaay ndox walla tàngal wala yooyu ah mais bu gisul nit di ñëw sama xaalis fa lay ne ci moom du jóg fi mu toog wala déggoo ma ba tey ayoo gasi mais léegi ñaari at ngay dund loolu meer ak fii nii ni mu mel ak nga bëgg a xiif bëgg a lekk mu nekk problème des fois da ngay toog bëgg a xiif toute une journée doo lekk. damay ndekki ba suur daal waaw damay ndekki déedéet su fekkee ne raam bi nii sama yëre yi mooy salte moo tax waaw damay toog déglu ku ma ku romb léeg nit mi romb jox ma jox ma lu jaar yoon ne ma lekkal sandis bu baax waaw. kan ah, man lekku lekkuma lu dem ci dawal fii laa toog waaw. waaw damay diw diw machine ba pare ma ma toog bëccëg bi damay sonn daal mais bu gudd waaw day saf daal mais bu guddee fi ne bu ma añee ba pare du ma yëg métit daal waaw tànk bi nanguwul xiif su ma amee nag ceeb bi même bu dee tuuti jaar na ci sama. amul ay mois waaw xaw naa yàgg tuuti mais amul ay mois mooy ah, ah, kii boobu amoon ci rajo bi fii affaire yooyu amoon xaw ma mairie xaw ma fan. waaw ba ñu talibi tali boo jëm see Padois foofu stade bi nekk noonu nga xam ne taxi yi mujj ñoo daw jur boobu waaw. léegi fi lii fi ma doon jaayee la lii bokkul ci fi ah. lakk yi bokkuñu daal. ok lakk fii ma toog nee naa la fee ma toog nee. waaw dama wëlbatiku fii. ndekete xeer yi tas na daal waaw ah. te fii xale yi koo jox sa xaalis ne ko jëndali ma añ mu dem xaalis bi am na koo xam ne dama ko fee jox sama ñeenti téeméer ne ko mu jëndal ma añ si woo ma nga ne di tege ba léegi gisuma ko daal mag la ay gisuma ko ba léegi daal soo ba tey maa ngi bëgg këriñ mais gisuma ku dal sama xel mi ba ma waa bitik bi am na sase këriñ yu fanweer yi su ma amee ñaar dinaa yendook moom ba ngoon bu dee marché sachet téeméer yi day yàgg daal damay boyal ba mu baax mais bu dee wàllu lekk bi kenn nekku fii man loo dem boobaa nan ngay def kan man dara sant yàlla suñu borom waa nenu baxal yi bu fi baree ma lekk ñaar naan ndox waaw ndox mi aussi dañ la koy jëndal soow yi waaw ndox mi tam dañ la koy jëndal ndox mi am na kuy jóge nii eeru añ moo may waaw moo may may ñaari gutt walla ñett nga fóot nga sangu tam fan ngay jëlee ndox. damay ñaan nit ñi rek ba keroog may daj ku baax fi mu ne ki newoon démb dinaa la may ndox tey moom laay déglu gisaguma ko ni mais loolu mère metti na de. ah waa yàlla baax na. est-ce que bu ñu jéemoon tey xool say mbokk ñu jéem leen jubbale ngeen nekk. man kiiw ma ci mbokk de man bu ma sañoon dañ may bàyyi ma wut fu ma ne daal. nga waaw su ma wutee néeg ma toog sama tranquille waaw waaw bu ma amee fu ma dëkk waaw. ba pare ñu yóbbu l'hôpital aussi faj la parce que yow boo wéree di nga mën a liggéey déedéet man garab wolof bi laa bëgg a fajoo daal ndax sama ah, ah. waaw ndax sama yaram nanguwul waaw. ah. waaw su ma amee bii ñaaram ak karité bi su ma sangoo ba set diwoo ko bu ma tëddee damay nekk ci sama jàmm daal. waaw ah parce que lii yépp bàyyi na léegi lii di waaw lii yëpp yëggatuma ci dara lii fi ma doon jaayee la ak bii mais wér na daal mais diw machine bi moo ko faj waaw. léegi kon yow. day weex xàtt nag. day dem lu muy wex noonu comme kaani rek day jékki-jékki saf comme kaani daal. jàmm ak salaam sama yaram dara newu ci ndax bu ma amee ndox léegi dangay gis may defaru fii di fóot damay fóot ba pare sangu defar samay bagaas ma tëdd waaw. ah xamaguma ko de maa ngi toog xaar yàlla ba mu ñëw. maa ngi toog xaar yàlla ba mu ñëw daal. noonu la toogee ndakaaru kenn du tàggoo boo nee damay doo buuse. noonu la toogee dugg ci njaayum banaana beeg pomme bi da daan tanil nit ñi nag ñun ay làkkat lañu mun na ko waaw waaw sama mag bu jigéen keneen takk ko fi ñu jaboot waaw mais ñoom man ak ñoom defuñu neen yow am nga ñaata nit yoo bokkal ndey déedéet ba déedéet sama yaay su mu njëkkoon na sëy man xawma kooku déggoo li ma la sama rakk bu góor mu ngeeg ay juróom-ñeenti bant mais mënumaa def defuñu neen déggoo seen dem hôpital li ma la defuñu neen duñu wax bo ayo eh, de wax amul ci de defuñu neen déggoo li ma la waaw defuñu neen daal man fii laa yem man bu ma baaxee ci jàmbur ñi la boo waaw ah xaw de gisuma leen fii déggoo li ma la wax du dem fenn du ma fenn ñoom duñu dem xamuñu fu ne man nit xaw ma fu ne maa ngi toog waaw. léegi daal mu ngi noonu kon noonu ngay dundee fii nga xamante ne mooy route des Almadies nga nekk si dund boo xamante ne tamit nag bu doy waar lool la parce que mbedd bi nga toog naaj bi mu ngi la lakk euh, ngay dund loolu des fois nga woo nit pour yónni ko mu daw yóbbu sa xaalis des fois nga am sa rajo ñu sàcc ko ngay dund mu mel ni problème yi si mbedd bi tamit bëri na. loolu la de. loolu la de mais ku yàlla teg nattu il faut nga nangu ko daal ndax bi ma fi demee Patte d'Oie ba ñëw maa ngi woon ci jàmm salaam oh la laa daal dama dem fële ci duus yi euh, ci géej euh, duus yi nekk foofu ma njàmpewu ba set añ fa ba pare door a indaale sama reer ma ñëw waaw maa ngi yoroon baraada bu ndaw ak ñaari kaas dañ ko jël waaw ma toog sama lewal naan ba pare door a tëdd dara jotuma bi ma yeewoo ci guddi gi laa yuuxu ba ñuy génn di ma seetaan waaye kenn waxul lu jëm ci man fi mu ne kenn du ma romb ba ma nanga nga def waaw xale yi romb fi tamit du sant kenn dara jàmbur bay romb moom laa yónni dara ca ba mu def ko waaye du fi ñii bañ nañ ko ba nuyoo sekkuñu ko man sax waaw. mais mais artiste boobu nga ne di way Maimouna laay ñaanal yéen ñaa yéen a bokk benn yaay mooy sa mooy yéen a bokk benn yaay. maa ko boot maa ko boot. Baba Diallo. xaw ma ci ñoom dara boobu kay jeex na man mi la ne xaw ci ñoom dara. xam nga seen kër déggoo li ma la wax su dem su dem amoon man maay dem ba dugg foofu mais du ñoom. déggoo li ma la wax sekkuñu dara man sama yaay moo taxoon ma bari tànk boor yooyu rek. naka la meer naka la naka la meer comme ça léegi ni ngay demee nii nga dem rek toog ba fàtte samay mbir du waajaa ngi nii ñëw di ma faj ba ci digg bi mu kuppee loxoom waaw maa ngi jënd diw machine bi. di di yaxaar kuy dem marché rek ma yónni yóbbante la karité ma mun ko cee boole waaw man tiitu leen de sama yaay moo taxoon ma bari tànk boor yooyu rek sama yaay il est mort c'est daal jeex na. waa ak sama omb bi daanu woon foofu muy ah, ñaar waaw déggoo li ma may la damaa bàyyi sama doom fii dem Gàmbi ma ñëw ñu ne ma xale bi dee na ay sagaram gisuma ci dara. waa góor la mu ne ma yaay foo jëm ma ne ko maa ngi ñëw ah sama goroo ko dindi waa. mu daal ay jafe-jafe kese la sa dund ni nga ko expliqué yëpp ay jafe-jafe. loolu la daal. Ah? mel ne ay jafe-jafe. waaw waaye maa ngi sant yàlla de. waa hôpital puus puus bee lañ ma joxoon. mais munu ma puus sama bopp fii ku ma ne mu puus ma fii ak bitig bi sax nga bañ maa ngi teg ceeb mais aw ma cin ku ma ne yóbbu ma marché ma jëndi ceeb nga ne ma déedéet apprenti yi ak coxeur yi di cox di def fii affaire oto yi kenn du ma romb ba nuyu ma fii la ñuy toog di naan seen ataay kenn du ma tudd xam nga ñooñu ñemewu ma leen wax dara. bi ma fii waaw waaw bi ma soog a ñëw mais du léegi. aha ngay gis kuy romb taal fii cigarette am guddi sax di tox waaw fii la ñuy toog di tox seen ñax mi ba seen xol seen mais kenn du wax ak man. yàlla su ma amee cin damay togg lu ma lekk du ma jënd de ndax su ma amee ci keccax bi sax mun naa defar ba mu baax ma togg waa ñàkk lekk bi dafa ma sonal ceeb bi moom dafa may jël carrément ndax damaa tàmm loolu depuis bi may nekk booy bu ndaw añ ba suur dama ko tàmm daal. ceeb bi ma amul nii tey la fukki fan gis ma lu niroog lekk rek. muy noonu mbokk téléspectateurs yi gis ngeen maire Néné Diallo mii nga xamante ne li lay dund mu nekk nag ay jafe-jafe lool lool lool que fi ñu ko fekk mu toog mu ngi si digg xolu Ndakaaru ndax bu ñu nee alma na mais du gaaw ker gaa nga na le nii lay def daal day jël ba nii ci tali fii yëpp day kosew ba fee oto di taxaw nee mu continuer nag di def nii waa ah du yàgg tuuti làmp yi tàkk daal waa mais yaa ngi hmm. gisoo ngelaw lii ëff ker gaa ngi génn ndànk ker ker gaa nga na la di day wër nag. voilà mbokk yi mu ngi noonu gis ngeen maire bi nga xamante ne tey moom la émission xew-xew ñëwoon seet si mu nekk kaabu bu doy waar boo xamante ne bi ku koy ku ko gis rek sa àdduna dafay tukki ndax nga nekk nit nekk mag nekk ak say rak yàlla def sa wayjur wu jigéen gaañu nga génn kër ga luwe néeg di daan sa doole di fay sa location kër googu ñëw ndox yi nangu ko nga mujj génn foofu di liggéey kon ne sa liggéey camion fel la nga ame fa accident bu métti ñu ne déet na waaye amatoo foo nekk mënatoo liggéey mënatoo dëkk yow kese nga jóge foofu ñëw fii si mbedd bi yàlla def itam nga lakkaat fi beneen lakk boo xamante ne mu métti lool mënatoo jug demal sa bopp mënatoo def dara loo xamante ne yow yaa koy defal sa bopp da ngay xiif doo lekk dangay mat doo naan te yaa ngi am ay mbokk fii si digg dëkk bi mu nekk loo xamante ne lu doy waar loolu ñuy lancé appel képp koo xamante ne mën nga si ñëw teg loxo si maire bi nga xam ne fi mu nekk mbedd bi du dëkkuwaay segam si góor sa jigéen xale la nekkul dëkkuwaay waxtu ma laa magum jëm boo xamante ne ba pare mu boole ay métit ay lakk-lakk yoo xamante ne mënul defal dara boppam fi ñu ko fekk ni fi lay sangoo fi lay lekke fi lay naane fi lay defee daanaka fi mooy këram lu muy jàmbaar jàmbaar des fois mu fóotal boppam defal lépp moom moo koy defal boppam kon ñuy ñaan yàlla rek képp koo xam ne yaa ngi si daan émission xew-xew cas bi ñu ni tey lépp loo xamante ne nit ñi mën nañ ci jàpp ñu jàppale maire bi bu baax a baax mu ngi fii si route des Almadies bi def na fi lu mat ñaari at ne ma ñaari nawet ak ñaari koy te fekk na ko fi kon ñu ngi koy massaw bu baax a baax a baax di wax ne mbokk yi léegi na nañuy àndandoo bokku ndey bokk baay parce que nga bokk am ay mbara biir di dund jafe-jafe yi te ku si nekk amoon na néeg boo xamante ne sax man na la faa dugal ndax yéen a bokk men bu ngeen nàmp ñu borom moo ñu bind te ko neexee day teg jaamam nattu tey cas bi dina demee woon fii xamante ne moom mooy si maire Néné Diallo nekk fi sur des Almadies bi mu nekk cas bu métti boo koy dund fi si mbedd bi lu mat ñaari at fii nga xam ne fi la toog mu doy waar lool lool lool di jaajëfal ñëpp ñoo xam ne may ànd ñoom si émission bi sama partenaire yi may àndal yëpp nga xamante ne à chaque fois xew-xew fait divers wala ay cas yëpp dañu koy ànd wala ay hommage di jaajëfal ki nga xam ne mooy Papis Mbaye si coordination bi Pape Mendy ah di jaajëfal Faly Diop moom itam si caméra bi rendez-vous incha allah mardi lay doon à 13 h si beneen xew-xew cas wala fait divers bu am fii si biir réew mi